soo ko tegee ci diine ji gëree ndax diine mooy ki jëkk xanaa di gërëm ñaari waat yi sant suñu maa ngi nuyu ñëpp di nuyu jigéen Sénégal yëpp di nuyu jigéen Sénégal yëpp ndax journée de la femme jigéen Sénégal yëpp la surtout mi nga xam ne dama ciy def nag loo xam ne lu garaaw la muy mbëri jigéen man maa fi njëkk a indi drapeau chef de l'État fii en Fatick tout mbëri Macky Sall loolu yëpp loolu pour loo xam ne day day kii pour commencé liggéey ba tey naka nga gisee liggéey bi moom mariage bi moom wax dëgg yàlla moom neexoon na bu mu nekk nii nag wax dëgg yàlla nag daa suufe daa suufe ndax ñun jigéen ñi dañoo amul bu ñu jàppale amuñu amuñu financement yoo xam ne financement yoo xam ne dañuy jàppale ñun jigéen ñi loolu rek mooy suñu jàpp ci fii ay liggéeykat rek ay jàmbaar lañ mais ñàkk am bu ñu jàppale moom moo tax ba suñu suñu muy muy jigéenu jaay jën yëpp jigéenu sow yëpp nag ak ñuy wol yëpp nag ak jaaykatu lëjum yeeg jaaykatu géej gi yëpp nag ñun ñëpp nag wax dëgg yàlla jigéen ñi Fatick moom liggéey am nañ jom te te nag euh, APR bu ootee Macky bu ootee jigéen ñëppay dem mais daal vraiment dañoo amul ku ñu jàppale amuñu ku ñu dimbale dimbale rek mooy mooy mooy mooy jàpp. naka mën a boole liggéeyu jigéen ndax jàmbaar ndax jigéen ñi moom jigéen moom liggéey rek lañ ko xamee man saa ma sama taabu bi kat macha allah moo man man góor góor bu jigéen bu mun góor lañ may wooyee ndax si sama taabu bi nag laa jàppale sama sama borom kër ñun jigéen ñi dañoo war a jàppale suñu borom kër waruñoo xaar rek ne euh, euh, weer day dee suñu borom kër joxul dañoo war a suñu borom kër ndax ñu jigéen nag jigéen moom liggéey lañ ko xamee daf nekk ni jigéen ñoo mun góor waaw. waaw njaayum jën bi dafa dëgg yàlla moo yor sama gerte ma moo yor sama gerte ñaanu ma kenn taxawu ma kenn it si jën bi daal laa koy xanaa kay li sama suufe rek mooy xanaa ñàkk am ndimbal rek ñàkk am ndimbal bi daal mooy sama problème sama table fekkee ñee ko moom ñi mel ni man rek ñi mel ni man rek man damay bëre di jox sama njaboot di jaay jën di jox sama njaboot waaw moo tax ma ñaan yàlla jigéen yëpp nag nañ mel ni Marème Faye Sall xam ne day jàppale jëkkëram kon nag maa ngi sant président de la république di sant bi nga xam ne royukaayu jigéen ñi la waaw moo tax may oo jigéen yëpp nag nañ mel ni man damay bëre di jox sama njaboot di jaay jën di jox sama njaboot te ma benn góor di fay lu yaas di fay lépp di fayal sama bopp ndox di fayal sama bopp courant benn nag ñaanal sama njaboot ma am ak moom yàlla na barkeel ba ñu fay ma li nga xam ne moom la sama borom bi waroon a def si man te defu ndax daf tax dafa liggéey. jërëjëf waaw jërëjëf.